bëgg a indi rek kàddu seede ci maître Ousmane Diagne ndax lii lu rëy la li mu ñu invité ci inauguration poste de santé bi lu am solo li waral inauguration bi mooy dafay wane ni rek liggéeykat la liggéeykat la population yi ñoo ko wax mag ñi ñoo ko wax xale yi ñoo ko wax

mooy bariwul waaye ci sa pas-pas ci sa taxawaay yaa ngi góor góorgóorlu bay am ay résultat kon ñun ñu ngi lay féliciter bu baax a baax a baax maître c'est suma xarit la suma doomu nday la suma camar sama camarade la ba ñuy xamante ak léegi lu yàgg la booba ay xale yu ndaw lañ nekk collège ànd jàngandoo lycée Malick Sy ànd daje université bu Cheikh Anta yàlla boole ñu tey jii ñu jiite Thiès kon loolu lu yàgg la waaye aussi lu dëgg lu dëgg la moo tax tey maa ngi amoon programme bu mag fële ci Rufisque wax naa ko mais dama ko dagg ñëw teew fii encouragé ko félicité ko waaye ma rassuré ñu bëree bëree bëri damay wax publiquement laay wax dama ni su ngeen séenee Babacar Diop ak maître Diagne di xuloo laa wax bu fekkee da koo séen dugg leen lu seen yoon nekk may répété bu fekkoon gis ngeen ko bu ngeen doxé ba gis ko la wax nan do am ba ngeen gis ko na ngeen man ku ca dugg ya cey dess di tambalé di wax sama contentement si poste de santé bu bes bi nga xamné mom lañ fi défar mën na wax né en tout cas c'est le meilleur poste de santé bi nga xamné mom la gis bima ñëwé ba légui wax deug fi yalla ñu ko tabaxé tabax bu mucc ayib la tabax bu mucc ayib la si kaw ne respecté nañu en tout cas norme yi nga xam ne lañu soxla si poste de santé et yaakar na ne suñu yégué si kaw gis logement bi yaakar na ne infirmier yëpp dinañ xëccoo bëgg ñëw fi parce que tamit nek na tabax bo xam ne en tout cas tabax bu mucc ayib la té di wax nit yi ne effectivement euh, lepp lu maire di def vraiment nous sommes pour intérêt population yi pour que population soit am jàmm la na pour population yi mën a faju sommes def ay distance baña def ay distance yu bari pour meuna a faju si kaw lan mooy accessibilité bi ñu améliorer ko pour les populations de Thiès depuis que ma ba ça fait un an gis j'ai vu que nous avons des maires volontaires nous avons des maires qui aime régler les problèmes des populations gis naa ne ay maires yoo xam ne ñu ngi gëstu soxlay population yi te ñu ngi def leur euh, tout leur possible pour que besoin population yi ñu mën ko régler donc man ñooñu damay sawar di mën a ak parce que tamit maires yi am na lu bëri lu ñu mën a lijjanti yi lu bëri lo xam suñu su taxaw pour def ko yalla mën na leen si te suñ leen ci jàppale yaakaar naa ne population yi ñoom ñooy kontaan et di wax population yi ne ñu fréquenter bu baax structure bi nga xam ne moom la ñu defar nii parce que tamit il ne sert à rien ñu tegal leen poste de santé ngeen di dem seeti maaman yi ngeen di dem seeti ñi nga xam ne seen xam-xam leeragul te loolu aussi daf leen di gaañ te lépp li nga xam ne moom la ñuy def ci poste de santé bi dañ ko teg ci ay normes de santé te lépp loo xam nous en tout cas ñoom dépassé na évacuer au niveau des centres de santé centres de santé suñu mënul ñu évacuer ko au niveau des hôpitaux donc pour xamal le premier niveau de prise en charge c'est le poste de santé il faut que nous fréquentions le poste de santé Mais tout tëp tëp rek dem ci hôpitaux wala dem ci centre de santé day xawa a jaxase affaire yi di len xamal ni initiative Ousmane rafet na

chef de district wax na ko léegi chef régional du moins que ni bi ñun ñëpp ñoo ci bokk yem dafa am lu ñu fi ñëw di fi fajoo parce que gis naa ni jotooy bi ñu fi toogoon ñëpp tey ci duróowaale bu ñëpp ñëwee ci poste de santé bi di fi fajoo amélioration la te lu amélioration am renforcement dañuy motiver nit ñi pour dara mën a sotti. moo tax ma ne sànq monsieur le maire Ousmane Ousmane sama nijaay la sama frère la sama jumeau la sama lépp la kon ni ko Babacar waxee rek ku ci nekk ñun am nga loo seet sa morom waaye boo ñu fekkee ñu sànnante xeer xamal ne bu ñu wénnee ci ruq ñun ñëpp ay ñooy ànd nekk benn man sama participation ci li Ousmane def tey mu jàngal ko waa Faye fajleel ko waa Thiès mooy motivation laa ci def je vais mettre 1500 tickets gratuits mais je vais mettre 2000 tickets Nous ko ko ñuy rek di préfet arrondissement de Thiès Sud di nuyu suma frère suma xarit suma doomu ndey docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès di nuyu mon frère et ami mon camarade docteur Mamadou Djité donc docteur ñu lay remercier je remercie le médecin chef de district Je nuyu les délégués de quartier de Fayou Fayou 1 et 2 euh, doyen Pape Diouf ak suma papa Gorossal. Je euh, di nuyu papa Souleymane Kanté qui est ni légui na ak le doyen Mamadou mon frère et ami sama jarbaat Habib Kane sànq ci français bi dama je nuyu sama soxna yi fi and avec mon épouse ma leen aussi di leen euh, remercier ci teewaay bi may les conseillers municipaux yi nga xam ni ñu ngi nekk ci conseil municipal bu commune bu Thiès Est di ci les membres du bureau municipal coordonnateur départemental bu PASTEF nga xam ni ci français bi aussi dama ko fàttee nuyoo te moom Adama dañu ko amel di saluer la présence de mon frère Abdou Ndiaye di nuyu ñëpp ñi nga xamanteni ni nii nañ fi tay mes amis d'enfance nga xamanteni ni nii Lamine Diouf di Ro mom, ragné nañ ko ci di nuyu wa fayu euh di len sant di len gërëm ci téway bi ak taaxirlu bi nga xamanteni ni yéne a ngi euh poste de santé bi nga xamanteni ni population yi bu yàgg ba légui ñu ko yalla mu ngi koy soog a dogal muy poste de santé boo xamante ni nii juróom-ñaar fukki million ak juróom-ñett moom ak lu teg moom lañ ci dépensé ñu teg ci aussi équipement boo xamante ni ñaar fukki million am na ko en équipement donc mu nekk poste de santé boo xam ni dañuy ubbi rek commencé liggéey te dégg ngeen sànq mon frère Habib Kane mu ni les 1200 premières personnes yi nga xamante ni dinañ fi consulté wu je may consultation gratuite. mais ba ay carnet euh, de mutuelle dañ pour fay euh, may wax rek ni fuñu dem rek dañuy dégg nit ñi di ni monsieur le maire liñ fi ñuy dara c'est parce que conseil municipal bi permettre parce que le maire organe d'exécution le mais conseil municipal moy organe de délibération donc ce conseil municipal bi ñëwoon di indi ay jafé jafé yaakaar ni réalisation yi ñu def duñ ko mëna def donc messieurs les conseillers municipaux de la commune de Thiès S, ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm aussi samay adjoint avec à leur tête mon frère et ami mon premier adjoint Ablaye Sall nga xamni suma su ginaaw fu dem sama xol sama xel day dal parce que xamna ni def.

deful dara lepp moor maire moo koy def mais mom day nango jël saaga yi lépp rek ngir liggéey lepp rek ngir bëgg ko xamanteni ni nii bëgg na ko liggéey bi nga xamni mu ngi koy def ci mairie bu Thiès donc monsieur le conseil municipal yow ak say service le chef des électriciens Ahmed Sankaré gis naa ko fi sank ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant di féliciter aussi mon cabinet nga xamanteni ñom ñoy les maîtres d'œuvre de cette belle organisation avec à leur tête le chef de cabinet Fallou jibi maa ngi leen nuyu bu baax Bamba xaada eh, ak ki nga xamante ni nii mooy Ousmane Ousmane Mangassa mi taxawoon fii di wax ku leen xool nga gis ni ñii ay xale lañ mais ñu nekk ay xale yoo xamante nii yu bëgg li ñuy def la donc maa ngi leen yi ñaanal li nga xamante ni nii mu ngi ci seen kanam te ñu am ci ay ambition yàlla leen yàlla dimbali ñu réaliser ko euh, comme j'ai l'habitude de le dire euh, maire nekk maire jafe na jafewul Euh, ci fi réew mi toll nag ñun dañoo docteur wax santé. ko ay xale yoo dañu ni ni changer ku ne santé ak éducation ay priorité la te loolu waa fayu xam parce que tabax nañ école bi ay salle de classe aménagé nañ leen jardin public tabaxal nañ leen poste de santé te bu mi dara defee jàmm dinañu fexe ba parce que fayu ñooy quartier résidentiel commune bu te gis nañ ni amul benn tali bu baax boo xam ne dugg na biir fayu donc bu yàlla defee jàmm incha allahu rabi dinañu fexe ba fayu am ay tali yoo xamante ni dina mel permettre quartier bi mu désenclavé wu bu ko defee bus yi mën fii ñëw di fi dugg euh, ñuy bala ñuy tënk suñuy cadre rek ñuy sensibiliser population yi di leen wax ni leen poste de santé bi seen poste de santé la

dootul soxla ñu nekk ci koñ yi di football ci suuf si may wax rek comme ni nga ko waxee woon euh, docteur que ni les maires yi ngeen am ici à Thiès lu waay ñàkk gis-gis di nga gis ni Thiès mu ngi bouger que certes situation yi metti na jafe na mais ku doxantu biir ville nga dem promenade des Thiessois wala nga dugg mairie centrale di nga xam ni maire yi ñu ngi jéem ku dem commune bu Thiès Est nga gis docteur Mamadou Djité lim fa def nga xamni maire yi ñu ngi jéem ku dem commune bu Thiès Nord nga gis suñu maire Birame Souleye Diop lim fa def nga xamni maire yi ñu ngi jéem donc ñuy wax wa Thiès que Thiès est en train de bouger et Thiès va bouger davantage ñuy ñaan nit ñi rek ñu and ak patience gën a góorgóorlu gën a maire fi nekk.

te ci loolu la ñuy woo waa Thiès yëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di beral nuyoo suñu mbokk journalistes yi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñuy permettre suñuy réalisation nit ñi di ko gis di gërëm aussi les forces de l'ordre yi nga xamante ni nii nekk nañ fii di ñu jàppale ci sécurité bi may gërëm sama jigéen ñi mes amazones les amazones de maire Ousmane Diagne di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di wax rek lu ci jub. ñu xam ni mbaaxaayu yàlla la biti